السلام عليكم بوك ييغا خامتيني يينا ني باي خيل سين شين بيغا خامتيني موي اوزي ميديا تاي ناك نيغي في تي بونتو فيدراسيون سينيغاليز بو فوتبول واي ناك لامو تاخ ني نيو في تي بونتو فيدراسيون بو فوتبول بور وان لين ايماج بي دا نيو غيس ني فيدراسيون سينيغاليز بو فوتبول نيافل نانيو بانيو ام كوب دافريك ñafel lañu aussi ba ñu qualifié li nga xamanteni moy coupe du monde waye nak tay sénégalais buy jaar fi VDN bi jëm Dakar wala nga jëm Foire sa xol day nakari ndax lan li nga xamanteni mom moy li wone ni fi fédération sénégalaise bu football la bo fi jaaré goudi do mëna xamé li lan lañu bind ndax aération scène de football lañu bind aération scène de football yenen lamp yëpp dafa brûlé kon nak fédération bu ñu wax fédération FED bi dafa brûlé aération de scène Euh, de football mom moy feeñ mais yenen lettre yep nga xamanteni mo nek ci biir ki bi dafa effacé wu kon nak lampe yi ñoo brûlé xawma dafa baxul xawma lan la mais nak Sénégal war na dépassé fii du toll ni fédération sénégalaise bu football lampe yi nga xamanteni mom mo wara léral ku jaar ci télé bi xamni fi moy mooy fédération de football lampe yi brûlé ba da ngay gis ay aération weddi gis bokk ci gis nga fb ak D bi ak euh, F ak E bi ak D bi dafa effacé wu li nga aération seen football Sénégal de football mom moy leer yeneen yi si des c'est pas digne de notre cher pays qui est le Sénégal moo il faut ñu def benn cri de cœur pour wan leen ni fédération sénégalaise de football liggéeyal nañu indil nañu coupe d'Afrique qualifié nañu coupe du monde waaye il est temps c'est lamp yi ñu defar ko ndax kii jaar ci tali bi mu xam fédération sénégalaise de football waaye nag dafa ñaaw c'est honteux en tant que fédération sénégalaise de football guddi gi boo fi jaaree doo gis lan ngay gis aération seen euh, de football ération scène de football c'est pas du tout digne pour le Sénégal montagne tax ñu den jaar dénoncé que le gis pour der de Sénégal dépassé fédération de football sénégalaise de football nga le fi li scène ah de football yeneen yëpp dafa effacé wu lamp yi nekk fa ngelawaay dimbale leen ñu ngeen defal ñu lamp yi pour mu mën a leer pour sénégalais yi xam li nga xamante ni moo ñu indil coupe d'Afrique indil ñu coupe du monde c'est normal que gars yi mën ci gis loolu kon nag mbokk yi li mooy information bi nga xamante ne moom laa leen di jox pour fi nga xamante ne mooy fédération sénégalaise du football c'est c'est pas digne de Sénégal nga xamante ni waroon nga jaar di xam lan la waaye mënoo xam ndax aération seen yëpp dafa effacé wu amul lumière de football Li dafa ñaaw kon na ko gars yi defar ça parle d'elle-même kon nag ñi nga xamante ni ñoo fédération bi nañ fexe ñu jàppale askan bi ngir ñu am bind yu leer ngir guddi gi buñ fi jaar ñu xam la